lamb ji moom man dinaa ci war a wax parce que yàgg naa sax di ko mébét waaye dama amuloon occasion pour mën ci wax lamb Sénégal CNG bi moo ko yàq loolu ko ne xam na ko parce que man damaa defee ne organisme boo xam ne da nga war a organiser ay lamb organiser ay lutteur da nga leen di dimbale di leen structurer di leen jàppale ba au moins mission bi nga bëgg nga réussir ko ci ñëw mais su fekkee ne da ngay làmb rek def CNG rek mu mel ne rek yow. organiser rek jël li ngay jël ñi ngay dàq nga dàq la ñi ngay sanctionné nga sanctionné leen xaalis boobu kenn du xam fu muy jëm loolu wax dëgg du liggéey te milieu làmb bu ñuy wax naan am nañu ay six mille lutteurs écuries yi kenn xamul nu mu toll yow nga gérer leen loolu intéressé wu la avenir u xale ya fay ne intéressé wu la parce que écurie bu ne bu ñu nee six mille écurie bu ne da nga am ay lu mu nee nu ay cent lutteurs te ku nekk xam na ne ci réew mi téeméeri lutteurs duñ bëri ci écurie bi. donc am na ay xale yoo xam ni ñu ngi yaakaar dimbale seeni waajur yaakaar làmb di entraîné wu daa gis xale bu def ay 6 ans 7 ans ci écurie du bëre sax kon nag le CNG na am beneen état d'esprit waroon na am loo xam ne day ñëw di innover la lutte réew mi ñu ngi wax problème d'emploi 6000 personnes soo leen gérer ñuy fot ñuy ñuy làmb ñi ci mënul làmb war nga toog di xalaat loolu leen mën a dimbalee ngir yàlla parce que loolu mooy seen mission parce que sénégalais lañ ñun ñëpp ñoom buñ dee ay xale bëgg nañu am lu ñu yóbbu si suturlu am lu ñu jëriñ seen i waajur mais ku def ay quatre ans cinq ans ci écurie defoo benn combat bu yàggee dañuy dem moo tax ñenn ñu ngi daw dem moodu moodu ji lan la CNG bi xalaat parce que boo amee six mille personnes war nga xalaat loo leen di gérer mais defu ko lépp nag Alioune Sarr moom la mooy xaritu ministre bi. ñoo dëkk fati da koy koy gérer rek mais vingt six ans ni du ko def ci poste loolu gulet ci àdduna ñu mos ko dégg loolu dafa rusu sax gérer structure ñaar fukki at juróom-benn kooku fii faa sax mënu ko kan moo kan mooy kan mooy def loolu loolu dafa mel ni kon dara moo ci ne mu toog ku ko neexul mu mu sanctionnel dàq la mere ñi arbitre yaa ngi ni un arbitre boo xam ne bi avec tous les risques du monde arbitre bu arbitré un combat boo xam ne c'est des centaines de millions nga ñëw arbitré combat bu toll noonu jox la dix mille francs wala sept mille nga génn boo dajee waa kër Balla Gaye ñu mere la mën nañ laa rey wala xale wala ñu door la xam nga yooyu y a des risques yooyu yëpp toppatoo wu leen assuré wu leen jéemu leen encadré jéemu leen motivé ba nga xam ne ils en sécurité waaw bàyyi rek bu dimanche mu organisé ñi ñëw ñëw ñu jox ko li ñu koy jox bu dimanche ñu rangale seen i avertissement ko génn ñaari yoon ñetti yoon ñu daggal la sept cent mille huit cent mille ah daal ko def ci kees bi mais ana vingt six ans yi ñu amandé nit ñi anamu tabaxu ci tabaxu ci arène bu ci xale yi benn benn stage wala leneen jéem ci wut promotion boo xam ne bi au moins lutteurs yi dinañ dinañ ci mën a dinañ ci mën a kii waaw loolu yow bu fekkente ne yow vingt six ans yaa ngi dagg ay ay ay ay mbër waaw ñooña la nga leen dagg delloo woo ko ci ñoom au moins ñu mën ci gis seen bopp. wala nga defal leen ci formation bu ñu mën a tekkee leneen defuloo ndax moom mënoon na mënoon na mënoon na mënoon na CNG bi bu dajalee xaalis mu jéem a seet mbër yi mu organiser leen mënoon na dem ba def un championnat national de lutte comme championnat football amee mënoon na jël écurie yi seet au moins écurie bu ne indi cinq mbër six mbër mais mu am na xaalis wala bu amul xaalis mu dem ci état ñu jox ko xaalis. parce que état bi pour pour dimbale dimbale dimbale dimbale nit ñi la xale yi dañu bëgg am lu ñu jàpp bu demoon def gis ministre bi ak li am mu dajale ko daal di daal di créer un championnat de lutte boo xam ne surtout ci ñooñu lan la koy def parce que ñaa ñu ngi am ay contrat di bëri mais ñi dul bëri mu dese leen defal un tournoi boo xam ne ce sera ce sera un tournoi de cinq six mois sept mois day nekk championnat au moins mbër yooyu nga leen ciy fay. mën nga créer loo xam ne aussi ñii xam ne ñu ngi bëri te am nañu avenir wala mais nga nekk en contact avec le gouvernement jël société yi ñoom buñ pare mën nañ gardiennage ah mën nañu nekk ay agent de sécurité ah boo leen créé ay ay ay ay GIE ñu nekk dix quinze ñu dem nga financé leen mais ni ñu jëleen au moins ñuy dund di liggéey. doo tëddoon rek nekk buur rek ànd ak ay gaayam rek ñuy gondi nit ñi rek mais gri Bordeaux li mu wax dëgg la. maa ngi dégg Balla Gaye am na benn ma dégg ñoon dagg nañ ko xaw ma xaw ma ñaata xaw ma sept cent mille xaw ma huit cent mille ci ci kiyam waaw ku bëree nga dagg huit cent mille bu pare mu dellu ci écurie de cent personnes la ma am nu mu koy séddalee ah donc ñoom dañuy bëree pour rien rek ñoom bu waxee ñun di rendre compte kenn mos naa ko dégg benn bi mu ne alors ak xaalis boobu dañ ciy def tournoi euh, drapeau de chef de l'état mais chef de l'état bu demee ba teg drapeau xanaa dana am budget wala wala moom ci amende yi la koy la la koy defee ak ñi mu ñi muy teq nii loolu loolu de man de je ne crois pas man daal maa ngi ñaan état bi bu fekkente ne dañ ne dañuy développer le sport dañuy développer la lutte lutteurs yi ñu essayé wutal leen promotion boo xam ne bii ku bëreewul it mën di liggéey wala xale bu góor bu ci ne ba bàyyi ngam ñu mën la dugal foo xam ne fii di nga mën a jëriñaat sa réew moo gën sinon dañuy ne dañuy nekk cinq ans six ans ñi bay ñi bu la neexee ñu agressé ñi bu la neexee ñu dem itali moodu moodu ji alors à quoi soo seetoo alors ténor yi ñooy ñooy bëre Balla Gaye Modou Lo nangam nangam ñooñu ak tout ils sont à peine une vingtaine sur six mille personnes et les cinq mille huit cent yooyu lu ñuy doon il n'a jamais pensé à leur sort en tant que responsable moral de ce CNG là alors lu muy jëriñ fekkee ne yow dañ la jox structure doo nu ñuy jëriñoo projet nu ci xale yi jëriñoon xale yi mën a am dara ah yow daal organiser ngay def rek ah mel ni un grand promoteur daal yow dajale combat yi bu ñëwee ñu tey fay CNG fay li ñuy fay nangam nangam bu ñëwee ku génn ñetti yoon ñu dagg la ah ku indi vingt cinq personnes au lieu de dix ñu dagg la ku yéex a ñëw ñu dagg la mais loolu loolu moo tax jàpp xaalisu jàmbur ngay dagg dagg dagg dagg ci ay fidélité te bëree ak looloo ànd il faut kii ñëw. léeg mu sàqi indi ñu bari mais yow nañ ko ne dagalal ñii seen seen paas man su ma amee trois vingt vingt personnes ma indi cinquante na trente yi fay ah bëri nag mooy def action boo xam ne bii yow bu doo génn soo dee sorti de et puis ay yooyu ay avertissement yoo xam ne warul warul suivi warul ànd ak ak sanction pécuniaire nañ la avertir wala yu demee noonu ñu suspendre la ne nañ doo bëre ñaari weer waaye nag fekk yow nga am ay un combat am nga ci quinze millions yow o au finish doo am de doo am quatre millions wala cinq millions ñu dagga dagga dagga dagga dagga dagg ba nga bëgg a dee nga dem sa écurie soixante mbëri wala cent mbëri yi fa ne da leen di mosal entraîneur bi da nga koy mosal marabu yi da nga leen di jox kooku looy am lutteurs yi ñu ngi defoon seen i millionnaire mais yoruñu dara dañu am sag rek parce que xaalis bi ñu gagné bu ñu delloo ci biir écurie bi da dafay demaat man xam naa ci dara parce que man yàgg naa suivre lutte man depuis depuis soixante 62 maa ngi sur euh, bëre yàgg naa ci lool xam naa ci bëre bi lu bare bare bare ndax njaarim laan nekkoon man depuis boori Patar dama naan sur ay mbër waaw bàyyu euh, bàyyu waaye ama ama balde bi falay balde keroog bi muy dam njaarim mook Ibou Pël ñoo doon bëre bi mu ko ko daanee bay dem ba booru Bambey ci la accidenté ci loxo bi yàqu xam naa ci lu bari xam naa ci lu bari suivre naa bari ay Abdou Ñamb man ñu daan bëre ñu yàgg dama la naan demoon bis bu ndóoy suñ kër la daan sama mag Thierno Ndaw moom la daan fekk foofu mu fay di bëre ji ay kër Cheikh ak fu kon man je ne suis pas je dama xam dama xam bëre bu yàgg dama suivre ba ba nëgën it maa ngi koy suivre. waaye du xool day génn faut pas il faut il faut pas être sentimental Alioune Sarr doit quitter le CNG avec ak ak équipe am yëpp bu ko defee ñu ngi mais Sénégal ñi fi mën a diriger bare na ñu organiser ñi ñi nga xam ne ñoom yëg nañu. Euh, les difficultés de la lutte ñooñu boo leen joxee ñu defar ko ñoom Gris Bordeaux ñooñu ak les anciens lutteurs la ak yooyu ak ay Manga 2 ay yooyu ay Tyson yooyu mais ñooñu ñooñu boo leen ñoom xam nañu li ci ne te dinañ am yërmande parce que leen daan daj duñ ko teg seen i morom ak bopp lay yëkki ne comme ça mais qu'est-ce qu'il y a de jàpp CNG jarul licence Sénégal li ko taral mooy il faut nga nekk un grand pacha am am licence wala nga am doctorat ñu dénk la dara mais organiser du daajul xam-xam yooyu. mais structures yi war ñu ko sa jox des gens comme ça parce que Alioune Sarr moi je le connais c'est un médecin il a fait ses débuts à l'hôpital Louga avec moi bi muy def stage boobu maa ngi bloc xam naa ko bu baax mën naa liggéey mais yor na fi ay structures yu bari mais yenn yi yenn yi nit du ko def ni du am benn état d'esprit boo xam ne bi bon a appliquer la règle koo xam ne kii da nga ko war a dimbale yaa ngi bëgg am promotion yaa ngi bëgg li la dénk mu soxaliku ngay fàdd nit ñi rek mais lu muy jëriñ jërëjëf ah. xam xam naa ñu ko jamono ji comme ak théâtre réew mi kenn ku ne xam na jamono ji ñu ngi ci ay ay yu méttee me yaa ngi dégg coowal suuf fu ne fu ne ku ne mi ngi yëngu en tant que nan nga gisee loolu mais coowal suuf moom musiba naaru laay la man dama man dama dama waaru sax te maa ngi lancé un appel au président de la République président Macky Sall mu jéem a téye suuf si ñu nangu ko téye ko réew mi adduna bi ku ne xam na ne léegi les pays européens là ñu ngi viré vers l'Afrique fii am place fii am suuf fii am or fii am diamant fii am bauxite fii am lépp ñoom jeexal nañu danañ ñëw nag wax nga ñu jiital ñu nag ñun ñu nekk ay surga parce que li ñuy def mooy ñëw ak ay des milliards ndax ndax suñu mbokki baykat yi dem jënd seen suuf valoriser ko def fa ay tool di la jël yow ngay bay ak ki comme comme li am Virginie comme ni Amérique meloon bu ñu yéexee ñoom borom dëkk bi ay surga la ñuy doon. ñu yor ay tool di la ci fay di tiire bénéfice bi di tiire les ressources di ko yóbbu en Europe yooyu on doit faire attention na gars yi bañate nangu loolu ay jaay suuf dañ ko war a bañ te it gouvernement bi moo mën a dimbale waa kaw gi nit bu ñëwee aussi ñoom itam war ñu di ko may ay deux mille ay cinq cent hectares ak quatre cent hectares ak ah mille deux cent hectares nga jox ko nit kooku day jël suufu jàmbur te bu ñëwee day am doole ñoom dañuy jógee Europe dañuy yor ay moyens day day investir mais ñoom nañ xam ni loolu bu ko nar a def ñoom ñu cherché des des de des des des des des promoteurs sénégalais ñoo ñu investir ci loolu ou bien ñëw dëkk bi ni ko ñun en tant que état danañ leen defaral fii danañ def ni danañ def ni yéen di ngeen ci liggéey état bi di ci am dara ngeen ci am dara yooyu yooyu état mën na ko organiser ñun daal dañuy bàyyi rek promoteur ñëw rek ñu jox ko mu kii état am ci tuuti à un petit pourcentage bu demee mu jël suñu suuf ñi fii mujj duñ ci am dara. xale yi mujj duñu am fu ñu bayee ndax suuf yëpp dañ ko jaay mais loolu c'est grave man si suis contre ces choses là contre naa ay ay ay ay bailleurs ñu ñëw fi ay kii ñu ñëw ñu leen di jox certes mën na nekk un sénégalais boog sax de bon teint nga xam ne kii moom li muy am du génn réew mi mais ay naar ay tubaab ay israélien ay ay yooyu yooyu na ko président bàyyi loolu moom baaxut santul yàlla kooku c'est une mauvaise politique de vendre la terre là à des étrangers ëllëg yow say doom màgg duñ bu ñëwee ñu la dëkk bi sa sa sa buntu nga fi am lool loolu loolu kenn xamul lu muy doon bay bay bàyyi nañ ko bay ñu bari xaw Mali euh, diggante Mali kenn Mali yëngu na sa gis-gis ci boobu sama gis-gis ci Mali moom wax dëgg yàlla kontaan naa ci réaction bi président Macky Sall def parce que ñun buñ ñu booleek Maliens yi ñoom benn benn lañ fédération du Mali ma fi amoon yàlla def mu tas rek. waaye bambara yeeg Sénégal yi ay Traoré Diop lañ sant ñi ñoom ñun ñoo ñun ñoo bokk li amit peuple bi ñoo soxla loolu mais un président de la République moomul nit ñi peuple bi bu ñu nee léegi ki ñu jiite baaxul mais CEDEAO waruñu dajale ay ay chef d'état rek ñu ñëw rek bëgg ko imposer wala ñu ji ko fa jéem a teg loolu baaxul loolu musiba la nañuy nañuy nañuy seet li soxla soxla réew mi ñu def ko dans le calme et la sérénité du am xeex du am dara mais buñ bàyyi mu nekk ay putsch ñu dem ba di fa reyante wala ñu naan ñu naan gars yaa ngay intervenir foofu gars yi bu fa kenn intervenir dañ leen bàyyi maliens yi defar seen dëkk dañ bay bàyyi defar seen réew buñ ne kii bëgguñu ko kooku naam ngoru dem yoonam ñu def ay élection libre et transparent ñu ñu seet ko ñu jël mais mënuñu nag ne ñii dàq nañ waa ji parce que kenn bëgg waa ji c'est normal que militaire dàq ko parce que militaire aussi dañuy sauvegarder da nga am la sécurité de l' état su ñëpp ne bëgguñu ko bañ nar a xeex ñu ne ko kaay daal ni yéen bu ñu leen dajalee ñu seet ñoom si la ñu ay élection libre et transparente bu ko dee ki gagné ñu xam ne moo gagné mu yore réew mi les militaires doivent encadrer l' état encadrer politiciens yi loolu mooy yoon mais duñ leen bàyyi naan ñu nekk fii naan IBK bëgguñu ko ñu fexe ba indi fi histoire boo xam ne bi jaru ko ñun ñu xam ne Mali ñun les Maliens lu ñu am ci port bu lañ koy jëlee ñun ñu ngi nekk ci corona bi ñuy bëgg a ñu ñuy tëj ay frontières bu ko defee lañ doon am ak néew muy. waa Maliens yi di ko fi andi fu ñu jëm ci xeexub jàmbur man moo doon moo doon Macky Sall du ma du ma fermer sax dama leen di bàyyi ñu ñëw di kii ñu di ko réglé ba loolu ah problème problème Maliens yi la ah amul amul tëj benn problème parce que xeexuñu fi defuñu fi dara dañ fiy wàcc seen i bagage war koo jël dem kooku man ku ma tëjloo frontière sax damay bañ ku ma mereloo Malien ma bañ dana yen woo daal ci njëkk a teraanga dinaa ci def lu ma ba ñu juboo moo gën mais du ma ci def ay ay ay ay benn décision. est-ce que lii dàqul euh, maanaam xel dem ci euh, ki nga xam ne moo fi nekk ci njiitu moom tam xelam dem ci li xew Mali mën a dem ba xew Sénégal. non li xew Mali du mën a xew Sénégal parce que moom xanaa nit ñëpp newuñ na génn président Macky Sall président Mali moom Maliens yi ñoo ne bëggatuñ ko parce que mënu. mais fii Sénégal tamit réew toll na foo xam ne nit ñi ñu bëree bëri. ah rek nañu nañu rek. Sénégal aussi loolu yàq nañu am nañ cat ba moo tax mbas mi sax topp ñu rey nit yeeg rey liir yeeg dagg bopp yeeg dégg nga fan yi xaat li amaat Sénégal jàmm buñ moytuwul gis nga giñ naa ci yàlla bu doon ñu baax ñi fi ne Cheikhna Ahmad Bamba Alaaji Malick ak ñooñu kon nun réew mi tàkk na ba jeex hmm. parce que ay bon xol ñoo fi ne ay ñu soxor ñoo xam ni ku ne sa morom da nga ko yéene woo ko jàmm mais qu'est-ce qu'il y a réew rek lu mu jar président Macky Sall am na ñum mu dundalul te ñu ngi dund Sénégal am na ñu mu joxul dërëm te ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi dox bu baax di kii mais nekk président rek taxul rek man ma yéene la àllaaxira Macky Sall ñi ko bañ ñi ko bëgg ko ëpp de waaw ñu ko bañ dañoo ne ci ci yéen rek na ci rajo yi segu rek kar kar kar ba pare ci yéen daa am ñoo xam ne ñi dañoo contre di nëbbu rek bu ñëwee rek émission bu def revue de presse bu ñu def di wax ay njaaxum ak di ngelajoog loolu nu muy jagee te kat ñi ko ci def ñu ci bari léeg bu ñu paree dégg na Moussa Ballo nee na am na ñoo xam ne yàpp dañ dem di ko ñaan ba loolu lu ko jar ni day na ngorem comme yow mi man xam nga ne yow daanaka du ma la gis ngay ñaan kenn du ma dem fen yaa ngi liggéey sa liggéey loolu mooy mooy mooy gëm yàlla Sénégal nañ bàyyi coow li kenn xamul ndax di nga fekk deux mille deux mil deux mille treize mais nit ñi xaanuñ dee ñu ne ko bul bul bul bul bëgg troisième mandat ah, moom bu ko bëggee bëgg ko daa xam ndax dina ko fekkee d'accord troisième mandat. mais troisième mandat moom lañ war a tudd parce que kenn xamul ndax suba yow di nga fanaanam déet xam nga Sénégal yam nee naa la loolu moo ñu yóbbu aras ndax yow dama lay xool man la yow gannaaw suba lii nga bëgg loolu mooy lan ku xam koy dee ne bu ñu bàyyoon ba 2013 des des ñaari weer boog nga ñaari weer yi kii daa bëgg a dégg nangam waaye lu des trois ans nga ne est-ce que doon est-ce que. est-ce que Macky dana ko fekke est-ce que ko fekke est-ce que kii wax naan Macky du du du fi amee troisième mandat moom dana ko fekke waaye nañ gëm yàlla bàyyi ko mu déroulé son programme su doxalu mu ñoom nañ dem campagne yi su doxalulee ñu génne lim fi doxal baaxut ñu wàcce ko. ngir jeexal jamono yi comme ni nga ko waxee mbas mi dem na ba euh, euh, gàllankoor yu bëree bëri ñu jublu ay événement yoo xam ne ni événement religieux yoo xam ne ñu ngi ñëw ci yooyu yan conseil nga ci en tant que. conseil yi ma ci am daal mooy conseil yi yi sëñ Mountakha Mbacké suñu suñu xalifa suñu sëriñ ñuy ñaan yàlla yàggal ko fi may ko kattan loolu ci la ñuy nekk moom daal lu mu wax moom la ñu wax lu mu waxul ko murit moom ndigal rek xam nga moom li ma la Sénégal moom commentaire mooy tas adduna yow boo gëmee sëriñ Touba gëm murit nekkub taalibe déglul sa sëriñ rek. mu mel ne dégg waaw loolu waruñu joow bu ko ragal ne nit ko ne nit nga mu à la kenn la xëy na Sénégal bu waxee ni moom bu bu bu bu du du ñemee ñëw Touba moo xam waaye am na murit moo xam ne tey ko daree ñëw Touba day doxee day doxee Tokyo ba fii parce que yooyu ngëm-ngëm la rek jàllu téye nit di wax na nangam rek nga koy disserter ak di ko analyser nam ko waxee est-ce que war na koo wax est-ce que waru koo wax mais nit ko nekk sa dëgg ngëm yow ni nga gëmee sëñ Touba da ngay di gëm lu mu la wax nga def ko lu mu la tere nga bàyyi man bu ma gëmee gëm tappale léeg-léeg man ñëw ne Serigne Touba laa gëm léeg-léeg ma jàdd mais loolu mënuñu ko tere ci li ñu de dañuy sonn rek Sénégal daal dañu bëgg commentaire Alaaji Jibu li mu wax ah yoonam la et moom xëy na dem na ba Cheikh Abdou Jàmbaar tiit na <laughs> alors ñemeetul wax na dëgg xëy na moom moom buñ ko ne woon lema ngi fi sax du ñëw daa ragal waaye am na murit boo xam ne bii bu ko sëñ su ko sëñ bi noonu tëddal fii ñu rey la mu def ko ndax gëm loolu nag la gars yi war di di tolérer nit ñi Sénégal dañ ba dañ jàng jàng jàng ba seen xel dañ leen rey parce que lu jotagul damay seen kii rek mu dama naa ah, kii kër diw la bëgg a dem lii la bëgg a def ah li yenn ci xelam lu ngeen ci xam waaw ñuy wax sa xel yow dafay xalaatoo loolu loolu baaxul nañu góorgóorlu débat yi ñuy def nañ ko bàyyi débat yi jaay ku ne di jaay scientifique day yàqum réew rek parce que kenn mënut a nettali géntu jàmbur président bu ñu daa bëgg troisième mandat nañ bàyyi ba mu wax ko ba yegg ca buñ ko bëggul ndax ko du ko doon buñ ko bëggee ndax ñu ñu sol ko ana ku bëgg lépp mais man mi bëgg naa troisième mandat dañuy wax lu tax du bëgg na ku ne bëgg rek waaye nag buñ demee nag ba ca àtte parce que troisième mandat moom moom lu mu lu mu bon bon bon ah, justice a koy toppatoo ay kayit yu leer lañ def ah, léegi léegi loolu lu leer la su mënul du bokk kay jeex na loolu diggagul mu des ñetti at yi yàlla nga xam ne yow mën ngaa xëy suba dee mën ngaa xëy accidenté nga ngay xuloo ni du ko doon loolu mooy kañaan loolu mooy indi nag mbas mi ñu ngi bëgg a dee nañ nu sarax buñ jëma woon rek yàlla génne fi lii yàlla daf ñu isaaba ah. gisoo ñu mar Sénégal gisoo ñu muur suñu gémmiñ parce que wax rek lañ mën yàlla nee na leen seen gémmiñ allez masque na ko ne masque parce parle trop wax rek wax rek wax rek wax rek dañ ñu sarax ngir yàlla ñu liggéey boom gañe na i dellu soo mandat ñi koy jàppale dañ ko jàppale mu jéem a def lu baax ñi nga xam ne dañuy contre ñoom nañ dem ci nit ñi di waxtaan pour bu ëllëgee ñu mën a def seen candidature mën a am waaye jógu dara jotagu rek nga est ce que nangam est ce loolu loolu nañ ko bàyyi man de damaa waaru ci barke yàlla ok jërëjëf léegi dama lay sant rek man kay xaw ma yow foo ma loqatee ba ñëw fii waaye ni ngay def nag moo baax parce que am na ñoo xam ne ñi dañuy bëgg di wax ci réew mi ay sénégalais lañu ay citoyens lañu waxuñu ko nag pour ay ay ay ay kii waaye nous som des citoyens libres ñun ñoo gënal libre ñii xuloo parce que ñii xuloo dañoo bëgg dara mun na li ñu bëgg mooy senegal jëm kanam rek Sénégal baax senegal naat ki ñu ki jig Sénégal yàlla na ko yàlla jox Sénégal ki nga xam ne jigul senegal bu yóbboo mu dem toog añaan ak soxor ak di yéene nit lu ñëwagul nga koy calculer loolu dara gënu ko yées ci àdduna moo tax daan bu ñu yéexee daañu yàgg suñu masque yi masque bi moom yàlla nee na tëj leen seen gémmiñ la wax parce que ku lu bon rek ngay wax ak di yéene su bon loolu baaxul